internet yi dal leen ak jàmm altine fukki fan ak ñaar ci weeru avril li gën a fees ci ponk xibaar yi bokk na ci Adji Sarr ak plainte ba nga xamante ne nag kii di avocat waaye nag jàpp leen plainte boobee Adji Sarr daal dina ciy am ndam dinañ waxtaanee Aïda Samb mi nga xamante ne way juróom bu góor moo fi bàyyeekoo negeni tey ci suba ginnaaw bi loolee nag jàpp leen ñii di waa Arabie Saoudi ak weeru koor gi nga xamante ni dëgmal nañ ko ci diiwaanuk Sénégal daal yàlla bu ñu noppee ca loolu dinañ dem ba ca diwaanu ko Zac Mbao daal di fay wax nag ak tout tànk bi nga xamante ni rek ñu nga ko fa doon jéem a kidnappé loolee mbokk yi buñ ko faram-fàccee dinañ ci toftal yeneeni xibaar xibaar yi daal di buur nes ñu dikk ak yéen ci faram-fàcce gi asalaamualeykum faram-fàcce xibaar yi dañu koy daal di dooree ca diwaanu ko Zac Mbao nañu ko junjee woon ca ponk xibaar yi jàpp leen nag daal di ne mbir mu doy waar moo fa daal am ci ayu bis la ñu génn ndaxte bu ñu sukkandikoo ci ci turu Ismaïla Diagne moom nag moo doon a benn tuut tànk boo xamante ni jigéen la te ñetti at rek la daa di am ñu sukkandikoo ci ay xibaar mbir maa nga xewee dafa ñuy woowee cité Mam Siré nekk ca diwaanu ko Zac Mbao ginnaaw bi nga xamante ni nag kii di Adja Khady daa di nay gis nag waa ji di wuyoo ci turu Ismaïla Diagne daa di bokk tuut tànk bi di wuyoo ci turu ga di ko wàccee ci ay escalier di ko yóbbu ca la ndaw sa daa di ñetti ñettalee ay escalier daa di ko cay topp ba mu ko fa toppee rek daa di ne ko foo jëmee xale bi ak loo koy doyee waaye waa ji bu jigéen bekk ay laajam ca la daa di bàyyee nag tout tank bi le ke escalier ya fasiyene wona daw way nak jappale ni e ki di Adja Khady moom bàyyiwu ko ci yon ndax te tongtongal na ko dal di koy japp ba doomu adama ya fekk ko ci dimbali ko dal di koy tegub loxo ba tay buñu sukkandiko ci liberation mi ñu bobu le xibar ñu ngay xamle nak dal di ne waji di wuyo ci turu Ismaïla Diagne bëggoon faa sàcc ben tout tank bu am ñetti at bañu ko yobbo ci kanamu yon way yon ñu ngi ñuy xamal ne bii nekkul lo xamanteni nak motif bu ñëkk la ci walum lepp lu jëm ci wàllum sàcc tout tank ba tay liberation Seras ñoo daal di ne waa joojee jàpp nañ ne lu ni mel defoon na ko bile yoon mooy ñaareelu yoon bi nga xamante ni daal di nay jéem di sàcc ab tout tànk ñu addu wax ci beneen mbir ginnaaw plainte bi nga xamante ni nag maître El Hadji Diouf daal dina koy déposé ni ni tey ci suba ñu sukkandikoo ci ay xibaar plainte boobee li ko waral nag jàpp leen ne benn kërub liggéeyukaay di liggéey lépp lu jëm ci wàllum série ak téléfilm ñoom nag ñoo daal di tourné benn théâtre boo xamante ni nag dafa fas yéenee daw ci weeru koor gi rek daal di koy tuddee cey aji saar cey aji nga xamante ni daal dinay def ab polémique ab tole bu mag la daal di def ci réseaux sociaux yi waral na ba maître El Hadji Diouf di dem porter ji plainte ca waxtu boobee nag jàpp leen ne ki fi tuumaaloon Ousmane Sonko ne dafa àgg di Adji Sarr daal dinay jàpp ne théâtre boobee dañ ko cee offensé yàq ko ci lu mel ni xeme ba tey bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar sax ñu ngay xam ne ni producteur bi daal dinay soppi tur ba mu ko tuddee woon ginnaaw ba mu nee cay Adji Sarr bi la yoon nag daal dina koy ginnaaw ci mbir mu ni mel ci ay séquence ci bande annonce bi sax boo gisee xale bu jigéen ba mu ngay laaj ci deux mille ci benn massage waaye tamit daal di taxaw rek jëf di jëf doxalin woo xamante ni tiital na lool loolu askanug Sénégal ay chantage waaye tamit dem rek ba ci di teg ay deal doomu aadama yoo xamante ni nag ñu ngi ci série bi ku ne weeru koor ne weeru partage maanaam daal di bokk lépp loo xamante ni rek yaa ngi ko yor ci wàllum dund loolee sax naka moo waral ba ar lu tollook juróom-ñett fukk ak juróom ñaar yoo xamante yoon la ñeel walum ciep waye tamit lepp lu jëm ci walum tandarma buñu sukkandiko ci xibaar yoyé ñu ngay xamlé nak daal di ne information bi le quotidien soleil national moko daal di xamlé ginnaw ambassadeur arabie saoudi bi nga xamante nak daal di né distribuer ne ngeen demb ay kit alimentaire lu tolloog 97 tonnes de riz waye tamit 25 tonnes yo xamante ay tandarma la buñu ba suñu ba ci Youssouf Al Hazar mom mi nga xamante nak mom moom di chargé de l'affaire bi nga xamante mom mo nek ci ambassade ba mom daal dinay dellu wat bu baaxa baax ci relation yi nga xamante ni réewum Sénégal ak Arabie Saoudi daal dina koy am mbir mi nag danañ ko séddale ci daara yi ci prison yi wala tamit ci association de femmes religieuses yi nga xamante ni nag ñoom daal dinañuy booloo nekk ci lim boo xamante ni toll na ci deux mille cinq cent famille yoo xamante ni rek nekk nañ ci ñaar fukk ak ñetti lieu yoo xamante ni daal dinay feccantikoo ba tey dañuy daal des ci weeru koor boobee daal sukkandiku nag ci inaakuwaay yeesal mi ni nag daal di dalal xelu di xam ne rek daal dina marché national bi saa walum lek ak nan dina fay am ba mu doy ci weerum koor gi kon nag jàppaleen ni weerub koor bi rek ap manquement du am bu ñu sukkandikoo ci directeur exécutif bi nga xamanteni mo nekk ca inaakuwaa association des commerçants et importateurs bu ñu ci alien mom nag mu ngay dalal xelu askanuk Sénégal di xam ne rek daal dina ci diwanuk mbour nga xamanteni fa la doon amal ap tukip nemmeeku lek gi daal di nay doy ba daal di mot seuk Sud Quotidien mo ñu bobu boobule xibaare ginnaw alien mi nga xamanteni nak nag lepp lu jëm ci walum lek ak nan lolé gis nañ ci stock bu doy ci diwaanu ko Sénégal fii ak weeru koor gi di jàll xibaar bu tiis bi nga xamante ni nag tey ñëw na daal di dal ci doomu Sénégal rawatina ab artiste boo xamante ni kenn dootu ko présenté te ku ne Aïda Samb Aïda Samb daal di nekk nag ab waykat boo xamante ne ràññeeku na lool ci seen musical bi ginnaaw bi nga xamante ni way juróom bu góor bi di Ousmane Samb daal di fekk baax ca diwaanu ko Mbàkke moo mujjee wuyu ju suñu borom bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar waykat bi di Aïda Samb daal nay ñàkk waay juróom bu bi di Ousmane Samb nege ni Koubala ca diwaanuk Mbacké waral ba rédaction bu Africa Global Express TV di jébbal njaalam kii di Aïda Samb capitaine Oumar Touré mi nga xamante ni nag ñu ngi ko doon dégg ci coowal Ousmane Sonko Adji Sarr jàpp leen ni nag nege ni tey la daal di am fanweeri fan ca kaso ba ca diwaanuk LGI Mbao bu ñu sukkandikoo ba tey ci ay xibaar moom nag fukki fan ak juróom moo ko daal desee ca kaso ba ginnaaw jours yi nga xamante ni daal nañ ko koy tëj ci ay xibaar ne liko wara rek ndaxte nee na lépp lu jëm ci ak ak yelefam dañu ko daldi di lolé nak mu daldi japp ne amul ben karangé ginaaw bi nga xamanteni nak nag jaarale nañ ko ci walum yoon daldi nañ koy tecc ci diwanuk LGI Mbaw waaye nak lén ci ay ñu ngay xamlé ci ay xibaar di xamlé nak ne capitaine Touré mi dafa am problème xel waaye nak xibaar bobé doon na lo xamanteni nak enquête kat yi sufu. nañ koy jël wéddi ko tek ko ci suuf ciol gu bon gi nga xamanteni nak gis nañ ko ci série téléfilm yi nege ni démb ñu daldi gis benen nok actrice bo xamanteni def na lo xamante daal di nay darati gémmi na ah, muy ki muy actrice bi ñuy woowee Kumba mu ndaw Kumba mu ndaw daal di simmeeku nag ba daal di set ngay gis li nga xamante ni rek noonee la yaramam daal di mel loolee nag moo waral ba association yi nekk ci diwaanuk Sénégal di xeex ak ak yelleef waaye tamit valeur doomu aadama daal di nañu koy naqarlu bu baax a baax série boobee di infidèle nga xamante ni nag bés bu yàlla sàkk ci ONG Jamra ñu ngoy dànkaafu série boobee ndax wax yu ñaaw fay def waaye tamit col gu jéggi dayo dem sax bay simmeeku di wane seenuk yaram ca waxtu boobee nag ak kii di Coumba Mou Ndaw réseaux sociaux yi yàq nañ ko lu mel ni xemee mbokk yi lii moo gënoon a fees ki ponk xibaar yi di leen jox dig daje ëllëg incha allah